tay rek tomb yi nga xamante ni ci lañuy waxtaan moom mooy tomb bi nga xamante moom ñuy wax dëddu àdduna ak li nga xam moom mooy jihaadu nafsi mooy jihaad ak sa bakkan loolu nag maanaam day loo xamante ni daanaka saa boo duggee ci alquran di nga fekk suñ borom aay yi na fi gàññ yi nga xamante ni mooy màbbu àdduna ak aay yi nga xamante ni day digal doomu aadama yi ñu jihaad ak seen bakkan ndax li nga xamante ni moom mooy dëddu àdduna ak jihaad ak bakkan day ñaar yoo xamante ni mënul ñàkk ndax doomu aadama day koo xamante ni ak ruux la goo xamante ni borom subhanahu wa taala daf koo bind ci anam gu set gu sell goo xamante ni moom malaayika yi la xeetool ñoom ñooy ay nawlem boo tax suñ borom di wax ne laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwim waaye nag thumma radadnaahu asfala saafilin suñ borom subhaanahu wa taala dafa bind doomu aadama ci melokaanu woo xamante ne mooy melokaanu ruux te muy ruuxam googu noonu nga xamante ni moom la ko moom moo nekk ci biiram nga xamante ni moom moo koy doxal waaye nag noonu tamit noonu la ko suñ borom bindee tamit li nga xam mooy bakkanam summa radannaahu aswala saafiliin nga xamanteni legi léegi doomu adam bi su fekkee ne mu ngi jaamu boromam ak di ko sàbbaal ruuxam day dund delluwaat ci melokaan wu njëkk wa nga xamante ni moo la meloon te mooy jaamu suñ borom ak ko waaye nag su sàgganee tuuti rek bu ko defee day wàccaat ba gën a lu gën a te rek moom mooy ca xuri sawara yowal ya, xiyaas billahi taala moo tax fi ñu li nga xamante ni moom mooy jihaadu nafsi moom mënta ñàkk ndax buñ ne jihaadu si mooy ngay xeex ak sa bakkan jihaad nag saa suñ ko waxee ñaar yi dafa am nit ñu nuñ koy déggee maanaam waxuñu rek jihaad yi nga xamante moom la wax nii nga xam moom moo xew nga xam ci loolu moom wax dëgg du jihaad maanaam ak yàq la tayit ak def lu neex la fi ñu toll nii te mooy di dugg ci ay ay jàkka di fa fekk ay jullit yoo xamante ni ñom ña ngay wax baat la ilaha illallah ñi ngi julli ñi ngi jaamu suñu borom ñu koy sabbal yow nga fekk leen fa defoo du leen rek manam di leen taal ay bomb ak yu mel non su ko defé jappé ko muy jihad loolu mom, wax deug mom kenn mu su ko tuddé jihad mom wa kenn mu su ko tuddé xam nga ki nga xamanteni da fay tudd yalla di jaamu suñu borom di sabbal yalla di wax baat la ilaha illallah manam wuro ko nono te sëriñ tuba day wax ne fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju la ilaha illallah manam bu len di nono ko xamanteni ni daf ciy génne baatu la ilaha illallah kon loolu moom ñi nga xam dañuy jàng alquran di ci dégg wala déggin woo xamante ni day melni. ni daf leen di jox li nga xamante ni mooy benn déggin bi daal nga xam dañoo war a jug dañoo war a xeex dañoo war a si jër seeni jëës yi ngir xeex ak nit ñeeg yu mel noonu yooyu moom ay nit a fi indi ngir jëmbat ci suñu diggante li nga xamante ni mooy ak noonoo koo xamante ni jeex ba ila yawmi diin mooy ala adaawata wal baxdaa ila yawmil xiyaamati ndax léegi-léegi da nga gis koo xamante ni sax maanaam mën naa juddoo fii ci Sénégal yor maanaam yar ko ci yar boo xamante ni mooy suñu aada ak suñu cosaan ak yooyu noonu yor ko ci yarub diine waaye nag mu génn rek daal di dem ci dëkki naar yi daal di fay jàngee waaye nag su su dikkaatee fi mu toll nii beneen pas-pas lay yor boo xamante ni day foog ne képp koo xamante ni bokkut ak moom pas-pas rek fi mu doon kooku du du jullit nii. waaw nga xamante ni ñëpp rek day am yéene rek maanaam lu muy am rek moom mooy takk li nga xamante ni moom mooy euh, takk. maanaam xëy na sax loolu egseegul ci ñun ci dëkk yi waaye ci Sénégal waaye mu ngi am ci dëkk yi muy takk say bomb rekk maanaam dem ci ñeen rek kalaate ko dóole ñoom ñëpp faatu fi ne loolu du du du jihaad nii ndax deret jooju ñuy tuur maanaam du deret du deretu goo xam ne dañ koy tuur ci yoon yàlla waaye dañ koy tuur tuural saytaane kon jihaad gi tax ñuy wax mooy mooy jihaadu bakkan kon nit ki dafa war fexe ba ñi nga xamante ni ñoom dañuy woote ci loo xamante ni wàllum politique la nga xamante ni ñoom da ngay dem fee ñu jàngal la nga ñëw fii ñu ne la nangam ak nangam nga xamante ni ñoom dañuy foog ni fi ne képp ku bokkut ñoom parce que moom yow moom bokkoo ci lislaam pintoon dañ laa war a maanaam faat nii nga xam ci pas-pas yooyu dañ koy yor nii waaw xëy na nag Sénégal moom yëg séeguñ foofu waaye nag pas-pas yi moom ñoo ko amee ñoom ñu ngay moom te waxtu woo xamante ni dem nañ ba am doole wala ñu mën koo defit it dañ koy def doomu moo tax léegi nañ delloowaat nit ñi ci jàngaleem sariya delloowaat leen ci lislaam ju set gi te dafa bokk ci fexe seytaane mooy fexe ba indi lislaam joo xamante ni lislaam gu tar lay doon ci ci adduna bi lislaam goo xamante ni du la du dul rayante ak du la won du maanaam xeex du won du dul mbuugal lislaam gu tar tar tar goo xamante ni maanaam képp kuñ ko présenté rek fintoon nii doo ko mën nangu moo tax fi mu toll nii maanaam lislaam bëri na ci ñoo xamante ni fi noonu tey ci dëkk yi nga xam mooy dëkki tubaab fi ne rafetul ci ñoom ndax léegi liñ gis mooy buñ ne sariya rek ñoom niñ koy déggee moom mooy dagg loxo wala dóor ay jigéen wala maam sànni leen ay xeer suñu njaaloo wala maanaam rey nit yu mel noonu yooyu ñoom fi ne saa bu ñu waxee sariya rek foofu lañ koy déggee nga xam te dem na ba nga xamante ni maanaam li nga xamante ni moom mooy marché yi sax fi nu boo ca taxawoon yuuxu baatub allahu akbar fi mu boo muytu fi mu toll yow moom mu ngi noon nga xam ñëpp dañuy tasaaroo fi mu toll loolu nag moom mooy sariya lislaam buy indi goo xamante ni léegi dafay delluwaat nit ñi ci benn lislaam goo xamante ni day tar lool day tar su ko defee nag fi mu toll nii mooy dem ba nga xamante ni léegi fi mu doon duñ ko nangooti duñ nangu lislaam googu te fi ne boo xool lu ko jiitu lislaam fi ñu bëree ba doon nañ dugg ci lislaam waaye nag fi ñi nga xamante ne ñoo jug di woowee seeni bopp ay ay kuréel yoo xam dañuy woote woo ci islaam di woowee seen bopp ne ñoom dañuy jihaat ci yoonu yàlla ñooñu fi ne ñoo taqal islaam ñoo ko salteel ñoo ko xatal fi mu toll nii ba tey fi mu toll nii ñu bëree bëri mënuñ cee maanaam gis li nga xamante ni moom mooy jàmm ak salaam ndax xam moom mooy jàmm ak salaam moom la suñu borom woote islaam moom mooy jàmm mooy diine jàmm ji nga xamante ni. Euh, manam képp kuy wut jàmm ak salaam boo dikkee da nga ko ci fekk mat sëkk diine yërmande la diine ji loo xamante ni suñu borom ne laa ikraha fi diini maanaam amul force waaw maanaam yow fi mu toll nii bul foog ne rek da ngaa war a doon koo xamante ni yow lépp loo gis mu taq rek wala mu salte wala mu kii rek da ngaa war a jël sa sa jees yi ngir lijjantee ko ci déedéet yow da ngay doon leer goo xamante ni da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay doon leer goo xamante da ngay jikkowoo jikkooy lislaam yor jikko yu set yu sell yu laab yoo xamante ni képp koo xamante ni jaxasoo naa yow rek dang nga ko mën a soppi te doo xoqatal kenn doo dóor kenn doo nangu këru kenn waaw doo rey kenn xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabu mubin yow doonal ak leer soo doonee ak leer fépp foo xamante ni yow nekk nga fa rek wala jege nga fa rek lëndam nga dana daal di dàqu fi mu toll nii boo xoolee Serigne Touba fi mu toll nii jihaad gi mu doon def yëpp. bil ulumi wa diin maanaam da doon jihaad ci li nga xam moom mooy xam-xam ak diine ci loolu la doon jihaad waaw nga xamante ni fi mu toll nii musta maanaam xoqatal kenn musta nangu këru kenn musta maanaam maanaam mu ngi noonu waaw nga xamante ni jihaadam yëpp ci li mu ko mooy xam-xam ak diine maanaam xam-xam ci la ci la ci la ci doon jihaadee ak ñi nga xamante ni. maanaam maanaam ak diine mooy noonu yàlla ci xam-xam ak diine ci doonu jihaad ak ñoom kon yow foofu ngay jihaad yi léegi nag jihaad boobu nag mooy jihaad bii ñu présenté ci adduna bi rek nga xam mooy raya bombardé yu mel noonu su yooyu noonu loolu du lislaam loolu jotewut ak lislaam dara lislaam li mu doon mooy bëggante ak yërmande maanaam maanaam bëggante soppante yërmande yër yërmante ci suñu biir ak dimbalante suñu biir waaw loolu mooy lislaam moy li nga xamanteni manam maanaam mandarga la bo xamanteni buñu gisee ab julli rek dañ koy gis ci mom ah moy la alquran wa ne ruxamaau baynahum tarayhum rukkaan sujjadan yabtaquuna fadlan min allahi wa ridwana simihum fi wujuhihim min athari sujudi maanaam l'islam lu sedd la lu sel lu lap lo xamanteni buñ ko woné nit ki faaw mu nangu ko ndax mooy ak muccam mooy ak maanaam ak ak ak xettalikoom fi mu toll nii waaye noonu yàlla yi moom duñ bàyyi benn yoon toujours danañ feexe ba taqal lislaam ji ba nga xamante ni nit ñi duñ ko mën a nangu. léegi loolu moom mooy jihaad gi nga xamante ni maanaam jihaad la boo xamante ni rek maanaam loolu moom ko teg ñi da ngir yàq su ko defee nit ñi buñ ci jàppee maanaam mu ngi noonu. léegi nag gi nga xamante ne moom la mutasawwifuuna yi di wax ak li nga xam moom mooy li ko jiitu mooy nit ki faaw mu dëddu àdduna manam man jihad ak bakaram ndax fi ne su fekkee ne dëdduwoo aduna doo mën a jihaad ak sa bakkan aduna moom faaw nga xam ne doonul kër guy sax dafa doon kër goo xamante ni suñ borom moom moo la fi indi waaye nag daf lay nattu daf lay nattu ci aduna fintoo ni waaw ndax suñu borom moo ne li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan allazi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan ndax bi nga xamante ni yonte yàlla aadama dafa moyoon suñ borom suñ borom daf ko indi ci barab bii nga xam mooy àdduna ngir lan natt ko fi waaye ne daf ñu fee booleeg ay noon yoo xamante ni moom la ñuy wax bakkan bànneex àdduna seytaane yii ay noonu la yoo xamante ni mu ngi noonu ak maanaam fi mu toll li ñu lay def yëpp li ñu lay xeetal lépp mooy ci loo xamante ni maanaam dëppoo wut ak sa ngërëmu borom subhaanahu wa taala léegi nag mu doon barab bo xamanteni manam sa bo fi nekké ngir bëgg ko dudd mom da nga gis lu bëré bëré bëré bëré xemmam tief yek yëpp dina fi dang ko fi fekk fin mu toll nii waaye nag moy mooy ki nga xamanteni mo meuna bayyi a nak ngir dudd ko won ko ginnaw dal di nekk ci diko borom subhanahu wa taala digal léegi nag aduna mom moy lan ndax aduna buñ né amut solo dañ ko wara dudd won ko ginnaw mom moy lan aduna mom moy lan moy lan ndax maanaam nit ki mën la waaw léegi da nga fay wax ne adduna kat moom amul solo dañ ko war a woon ginnaaw te yow adduna fi ngay sàkk lu baax fi ngay kiiyee maanaam léegi da war a xam lan mooy adduna fi mu toll nii mooy lan léegi ba pare. loo xamante ni maanaam tere suñ borom yi la loolu fi mu toll nii ci adduna la bokk lépp loo xam suñ borom da la ko aaye nga xam day loo xaraam loo xamante ni fi mu toll nii maanaam lu lay lor la loolu adduna la lépp loo xamante ni tey jii fi mu nii soo ko defee. maam tey xam nga fi mu julli ni jullit nii fi lu baax la lu set lu sel waaye fi ne am na noo koy defee fi mu toll mu dugg ci aduna su fekkee tey jii fi mu julli yaa ngi yaa julli yaa ngi kii na fi ne lu dul rek nit ñi gis la xam ni nga mën a wala ni nga mokkale alquran ak ni nga koy tare yi mel noonu fi loolu ci aduna lay dugg waaw nga xam ci moo tax nit ki lay lay dana julli ba pare sax ñu taxa taxa ñaar julli ko ba mat sëkk ñu duuraat ko ci kanamam waaw من جاء بالحسنة فله خير منها وانا نعم، ومن جاء بالسيئة فكبر وجوههم في النار يعني دنا دف لو باخ با بار ني جيلات كو دورات كو سي كانام فين توني تا لول لي باس باس بين كو في موم مو تخ فين دول ليغا خامنتي نك موم موي ا فين ازكا لو باخ لا وانا سي باس باس بام كو دفي boko في ngir jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala lé day dugg ci mirum allah xir waye boko defé ngir lénen day dugg ci mirum aduna loolu moo tax sa fintóor yi nga xamante ni ay ay ay nit yàlla lañ maanaam di di di tarbiya nit ñi ak di leen tarxiya fintóor nii léeg-léegi kiiraay googu day am ci maanaam amatu naas bi nii bu ñu leen gisee xëy na ñu dëkk ci foo xamante ni mu ngi noonu maanaam dëkk ci dëkkuwaay yi nga xamante ni moom lañ xam maanaam li leen yàlla wërsëgalee ñu di ko jëfandikoo léegi nag ñoom kiiraay gi muy doon mooy dañuy foog ne buñ nee dëddu àdduna rek da ngaa war a sol sëri yoo xamante ni maanaam mu ngi noonu dafa war a taq tilim ah waaye nag léegi buñ nee dëddu àdduna waroo am kër goo dëkk da ngaa war di rafale da ngaa war kii dee loolu du loolu fi mu toll nii maanaam maanaam fi mu toll nii li nga xamante ni wërsëgu bi la suñu borom subhanahu wa taala wërsëgle muy kër gooy dëkk dafa fegoon naaj wa ak dafa dafa nekk ak sa njaboot. loola fi mu toll nii ngir ko def ngir lan jaamu ci suñ borom subhaanahu wa alaa nga xamante ni yow defoo ko ngir nii nga xamante ni mooy ëpplante yi li alquran di wax ne innama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaatur fi l amwali wal awlaad yow fi na defoo ko ngir loolu yow lii da ngaa gis ne wërsëg wala suñu borom subhaanahu wa taala wërsëgalee léegi nag nga jël ko di ci jaamu suñu borom ak di ko ci saabal maanaam nekk daf ko barab boo xam barabu jaamu suñu borom barabu saabal suñu borom subhaanahu wa taala di ko ci sant su ko defee nag loolee maanaam day dugg ci li nga xamante ni mooy mbirum àllaaxira su ko defee wërsëg la woo xam ne suñu borom moo la ko wërsëgale nga di ko ci santaat léegi fi mu toll boo amee yëre yu set da nga koy sol ngir sant ci suñu borom mi la ko jox boo amee dàll yu set da nga koy sol ngir sant suñu borom subhanahu wa taala lu baax lépp lu baax rek maanaam lu nit di jëfandikoo fi nekk yi jaam suñu borom kenn gën ko ca yey ndax an nazaafatu min iman yow da ngay doon ñoo da ngaa doon ko xam yaa ngi jaamu suñu borom di ko sàbbaal di set di sell maanaam fi mu ne yow da ngay jaxasoog ay malaayika ak yi rawxaan yoo xamante ni ñoom it dañoo bëgg lu set lu seel yow it da ngaa war a set da ngaa war a seel sa bopp léegi nag set googu ngay seet ak sell gi ngay seel sa bopp di fonk sa loolu tekkiwul li nga xam mooy bëgg dafa bëgg àdduna déedéet da ngaa da ngaa doon koo xamante ni da ngaa représenté maanaam li nga xamante ni moom mooy diine su ko defee nag da ngaa war a wone lan mooy diine ak maanaam ni mu fonkee ak set ba yent wax ne maanaam set kat ci ngëm yàlla ci la bokk. subhanahu wa taala kon dëddu aduna manam moy nga xamne rek aduna du saxut xamne ne fi mu barab la bo xam dang fay nek muy barab baaxime yi ndax aduna suñu borom daf ko pesse ak lafu yo lafu yo wala manam daal koy daal koy gëna dis fa suñu borom subhanahu wa taala kon pecce xoo gi nga xamanteni ni moom ci aduna ak li nga xamanteni moy mbiri aduna yi rek da manam alal sakku al yo xamanteni fi mu mu ngi non lula neex rek nga amé ko ko ak yeneen yi nga xam mo xew nga xam yépp rek manam fi mu ci bëgg aduna ci day dugg yoy nga tek ko ginnaw won ko ginnaw nga xam léegi birum xol la birum xol la mo xam yow sax xol ci boppam mo am yo xamanteni demb démb ak bërki demb daf ko doon bëgg te loola de po a ngeerumul suñu borom subhanahu wa taala leen daf koy won ginnaw daf koy won ginnaw manam dootu ko bëggati dootu ko soxlaati dootu ko yitté fi léegi xolam li ciy nekk mooy leen rek muy suñu borom subhaanahu wa taala nga xam moom képp moom lay bëgg fi mu ci xolam waaw nga xam lépp lu nar a dox diggante mu yàlla rek dafay daal di génne loolu diggante mu yàlla mu set wicc léegi nag su ko defee nag fas yéene nag not ki nga xamante nag mooy bakkanam ginnaaw bi nga xamante nag muy commencé génn ci mbiri adduna yooyu yitteel li nga xamante ni ndax fi yi toll nii adduna ak alaaxira dañoo jàkkaarloo fi mu toll nii ngir nga fase ngir nga bëgg ngir nga jublu alaaxira da ngay fase adduna ba pare waaw ah, da nga ngir ngay jublu àllaaxira mën a jaamu suñu borom man ko saabaa da ngay fassé allah da ngay fassé da ngay fassé aduna faaw nga fassé aduna baye aduna léegi ngir mën a nak nag li nga xam mooy àllaaxira ndax suñu borom day wax ne manam fi tool ni ah, dunduk aduna day saxut nee dundu gi gii tool ba nga ay nelaw la ak nga faatu fi no so faato ni ci nga xam ne eh, manam maanaam fi mu ndekete waaw waaye nag dund gañ jëmaat te muy ëllëg loola mooy ak dund waaw wa na daaral axirata la hiya al xayawaan maanaam dund googa ñu jëmaat fi ne mooy ak dund fi ne lii ñu nekk nii maanaam ak nelaw rek la maanaam fi mu toll ciy gént rek ci lañ nekk waaw balaa ngaa xam ne adduna amul benn solo sax maanaam fii ci adduna nga koy njëkk xamee ndax li lay xam ne adduna ñàkk gi mu ñàkk solo mooy martaba boo maratib boo ci toll rek dangay gis ne maanaam la ko féete suuf lu ñàkkoon solo la maanaam bara maanaam fii nii ci adduna fii nii rek même ki nga xam dëddagul adduna wanagul ginnaaw adduna fi mu toll nii rek nga xamante ni maanaam adduna dong ci lay dundi dana toll ci barab yoo xam dana xam ndekete adduna kon lu ñàkk solo la ndax fi mu toll nii ci ci moo ko xewoon maanaam ci maraate bi yi ngay toll rek léeg-léeg ci ci ci adduna rek moo lay xamal ne ndekete ëdduna kay ndekete lu ñàkk solo la ndax la ko alquran waxee innama alxayaatu dunia laibun wa lahwun wa zinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasuru fi l amwaali wal awlaadi kamatali xaysi ajabal kufaara nabaatuhu bana aay ba eggee nga xam léegi fi mu doon suñ borom aay boobu rek fi ne doy na ngir nga xam ñàkk solo àdduna ndax léegi fi mu toll nii masalan tey xool ko ci xale bi nga xamante ni dafay doog a judd fi mu toll nii njëlbeenam bi muy doog a judd fi lim xam moom mooy ay fo maanaam nekk ci ay ay ay fo yoo xamante ni léegi day day dàqanteeka bëreeka nekk ci defar ay fas yu ndaw ndawaan yi nga xamante ci lay nekk fi noonu di ci foog yooyu fi na jàpp moom mooy àdduna nga xam ci ni fi mu toll nii ñi nga xamante ni maam weesu nañ ndaw weesu nañ anam googu noonu fi dañuy jàpp ne kii moom lim nekk nii amul benn solo te fekk ci xale bi moom moom jàpp na li fi ne lii du am solo la yow fi ne yaa xamul rek li mu nekk nii nga xam tey fi na saa bu xëyee ba ndékki ba pare fi ko bëree ko foo ko yooyu fi loolu moom mooy fi mu toll fi mooy li ëpp ci àdduna nga xam loolu la gisee mooy lu am solo ci àdduna nii waaye yow mi ko fi mu toon da ngay foog ni fi mu doon xam naa nga naan ah kii de moom day foo rek waaw nga xam buñ la lëjëlee sax fi na nga naan la génn leen dem fooy waaw nga xam ñoom dañ ciy sawar lool nekk ci bëri baa dàqante ba fi na loolu moom mooy fi mu toll nga xam te ni fi loolu lu am solo la ci moom fi mu toon waaye gis nga boo weesoo tuuti rek day gis ne léegi képp ku ci tollaa danaa ah ñii def fi mu toll nii maanaam ndekete maanaam lee ma nekkoon fi ne yàq na sa temps rek ndekete leeru dara. nga xam léegi fi mu toll boo xawee màgg tuuti xaw a ci anam tuuti xaw a màgg nii sa xel xaw a màgg tuuti léegi fi mu boo gisee nit ñi xaw a màgg nii dem daara nii sax di jàngi nga naan ah fi ne mooy dem daara nga xam sa xel mi yëpp ci dem daar lay nekk fi mu toll léegi fi nii boo xasee ba dem maam mooy adduna lépp loo ci dàq ba jot ko fi mu toll nii soo ko jotee fi na day amaat coono bu ci nekkaat waaw day amaat yeneen coono bu ci nekkaat nga am léegi mu toll bi nga demee nag ba dem daara fi mu nii da lu ko jiitu da nga dem daara ngir naan xënt woo dem daara nga xam da nga ciy soññ sax say waajur ngir dem daara nga xam da jàpp ne fi ne ñu dem daara fi ne ñooñu yeewuñu fi mu toll nii maanaam ñoom ñooñu am xel ñi fi mu toll nga xam léegi fi ne bu ñu la xasee ba yóbbu daara nag fi mu toll nii yow xel moom boo xasee ba dugg daara gis coono baag mettit baag yëpp fi mu nga ne yow moom génn rek ngay bëggaat fi mu toll nii doon fa bëgg a toog waaw bu ko defee ñi nga xam nekk nañ daara ba génn daara nag yow da ngay gis ni fi mu toll nii ñoom ña nga ca àdduna léegi ñu ngi dem di liggéey ñu ngi wàcce ka maanaam xëy na ñoo ngi ci seen i mbiri àdduna daal da ngay jàpp ne ñoo ñooy ñu yeewu ñu fi mu toll nii waaw fi ne yow moo tax marta boo ci tool rek marta ba ko féete ko da ngay jàpp ne loolu mooy ki waaye fi ne saa boo ko jotee rek da ngay gis ne rek fii ay coono doo fi nekk bu ko defee ñi nga xamante nag xëy na ci mbirum adduna bi ci la ñuy dox topp jigéen ñi wala ñu topp maanaam adduna bi topp kii da nga gis ne yow loolu rek moom mooy ak dund fi ne yow ñooñu ngay teg bët jàpp ne ñii ñooy dund bu ko defee ñu toll ci dundin boobu noonu nag ñoom dañu gis ne maanaam fi mu toll nii ñoom dañoo war a yor seen ndaw jeexal ko ci maanaam daal xëy na nekk ci taxawaalu topp xëy na maanaam ñoom ak jigéen ñi wala bu dee jigéen muy topp góor ñi hmm, am nekk ci anam googu nekk ci anam googu. su ko defee foofu rek fi lay nekk di ci dund waaw nga xam fi mu noonu nii maanaam képp ku ko bëgg a génn ci anam googu day foog ne yow da fi mu toll nii xamoo adduna fi ne lii mooy dund gi nii fi ne loolu la lay jiima xamal ni dina xamal ne yow fi ne yeewoo ndekete di xanaa xamoo lii mooy dund gi di su ko defee nag ñi nga xam passé nañ foofu ñun buñ gisee nit kuy dund foofu dañu ah, moom ndekete moom ndekete yeewu lii mu bëgg a yàqee fi mu toll ne ci mu ngi noonu waaye fi ne moom mi ci tool day gis ne fi ne loolu am solo waaye fi ne moom mi toll foofu dundi dana jànkoonte ak ay jafe-jafe léegi léeg yoo xamante ni maanaam mu ngi noonu waaye gis nga bu ko weesoo ba commencé dugg ci mbirum soxna maanaam ay dépense ak ay yooyu yëpp war ko fi mu toll nii dootul talatee mbir yooyu fi ne di taxawaale yu mel noonu fi mu doon léegi maanaam même bi mu tollee anam nga mu ngi doon xëntiwoo ngir am soxna boo amee soxna xëy na jàpp ne fi ne foofu la bànneexu adduna bi commencé waaye fi ne gis nga bi amee soxna fi ñaari fan ñett fi na coono yi commencé te ñu commencé xuloo wala ñu jàppandi ñu commencé seen lijjanti fi mu toll nii waaw bu ko defee fi mu foofu la doon yaakaar ne bu ca tollee maanaam fi na bànneex fa la commencé waaye fi na bi mu ko bi mu ci tollee fi mu toll nii ba am ko foofu la commencé fi na coono ba commencé fi mu toll nii xuloo yi fii wax ji fii bu ko defee mu ngi noonu nga xam amul lenn loo xamante ci àdduna mën koo xëcc ba jot ko daj ca bànneex bànneex ci yàlla rek la nekk amul feneen waaw bu ko defee maanaam gis nga ba way soo anam goow nga xamante tey jii fi mu toll nii dem nga ba nekk xëy na mag nga xamante léegi tey jii doon nga màgget moo xamante ni tëratoo dara ci àdduna fi noonu ni ñi nga xam ne ñoo toll ci ay wàllu foow ak ay ñoo toll ci seen dund nii topp xare xëy na internet bi topp maanaam maanaam àdduna daal topp ci jigéen ñi wala bu dee jigéen mu topp ci góor ñu ngi mel noonu wala ñi nga xamante ni xëy na maanaam ñu ngi ñoom àdduna li mooy am kër takk soxna yu mel noonu ñoom dañuy gis ne ñi nga xamante dañoo dund ba nga xam tey fi mu toll nii gis nañ seen li ci desati fi ñu doon ni doontu dara ne daanaka xëy na li ñu dundoon fi ne dootuñu ko dundati parce que dafa dañuy gis ni ñiy toll fii nii di dàq adduna fii dañoo dof yéewu wuñ waaw ndax fi ne gis nañ ñoom ne ah ndekete kat ñoom lu ñu doon dàq léegi gis nga ñoom tey nekk nañ mag fi ne ñu xool seen adduna xool seen li leen weesu adduna boobu ñu doon dàq anamu tey amuñ ci dara su ko defee ne dañuy gis ni kon ndekete ñoom yàq nañ seen léegi ñii ci toll nii dañoo yéewul su ko defee ñoom ñi toll ci dàq adduna boobu dañuy gis ne mag ñee tamit yéewuñ ndax ñoom ñoo xamul luy àdduna fekk mu ngi noonu àdduna moo bind loo xam fi ne loo ci dàq wala loo ci jotagut fi ne boo ko jotee coono ba cay nekk rek fi ne mu ngi noonu. bu ko defee mag mu nga xam moo ca tool nag nga xam léegi fi noonu gis na ne fi noonu àdduna solo fi ne moom coono bu muy daj foofu rek nga xam fi ne léegi nekk na mag fi ne tëlatu daanaka ceeb bi fi ne muntu koo lekk ndax maanaam mu ngi noonu léegi fi mu toll nii ay jabet dugg nga xamante léegi ñu aaye ko suukar si aaye ko ay mbir yu bëree bëree bëree bëri nga xam léegi day dem ba toll foo xamante ni maanaam duutul mën a waxatee kenn ñëpp koy daw moo tax fi ne léegi gis mag moo xam fi ne boo ñëwee waxtaan ak moom fi ne dala fi bëgg a téye fi ne mag ñi xale yi duutuñ ko tal ndax duñu amat seen jot ñoom seen dund googu fa a àndal a dalay téye di waxtaan ay waxtaan wu yàgg mooy léegi amatuñ ku ñu waxal léegi nag su ko defee fi mu toll nii maanaam buñ doxee lu yàgg fi ne nga xam léegi dañuy dem ba adduna di leen soof fi ne dañuy bëgg sax ñu leen di dañuy dem ba gis mag moo xam day ñaan sax ngir faatu nii fi mu toll nii waaw day ñaan ngir faatu ngir doyal sëkk ci adduna fi mu toll nii fi ne gis nga adduna foofu muy mu jëg nit moo tax léegi yow teel koo dëdd xamal ne fi ne adduna fi mu toll nii maanaam lu ñàkk solo léegi ni nga war a def moom mooy dëdd ko wan ko ginnaaw nag commencé nag jaamu sa borom subhanahu wa taala li nga xamante ni moom mooy mooy dëddu àdduna kon mënta ñàkk mënta ñàkk waaw maanaam fi mu toll nii xeex ak sa bakkan di jihaad ak moom jihaadu nafsi lu ama am solo la loo xam luy dimbale jaam bi fi mu toll nii ndax suñ borom subhaanahu wa taala nee na wa man yuhaajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraaxaman kathiran wa saatan wa man yaxruj min baytihi muhaajiran ila llahi wa rasulihi summa yudrikuhu l mawt faqad waqa ajruhu ala llahi yàlla neen ñi nga xamante dañoo gàddaay ci yoon yàlla maanaam ñooñu di jihaad maanaam gàddaay mooy maanaam bàyyi adduna ndax képp koo xam ne gis nga ko mu woon ginnaaw adduna bul foog ne ku ñàkk xel la de ñàkkul xel dafay ku yeewu koo xamante ni teel naa xam maanaam adduna moom mooy lan. nee na bi woon ginnaaw adduna xemmim tiif yeeg maanaam bëgg-bëgg adduna yi fi mu toll nii dafay bëri lool waaye tiiwu daf koy won ginnaaw. daal di jëm man nag li nga xamante ni mooy borom subhaanahu wa taala di ko jaamu ak di ko saabal suñ borom neen kooku doonte sax yëg ci man bu faatoo ci diggante ba nee ab yoonam danaa ko matal comme bu yëg si woon ci man fi mu toll nii waaw comme man ab yoonam na muy matee noonu laa koy matalee fi mu toll nii nga xamante ni léegi mu ngi noonu yàlla mu ngi waxaat tamit ci di wax ne inna allazina amanu wa haajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wallazina aawaw wa nasaru ulaika baaduhum awliyaau baadi wallazina aamanu wa lam yuhaajiru maa lakum min walaayatihim min sayin xatta yuhaajiru ñi nga xamante ni maanaam dañoo gëm suñu borom subhaanahu wa taala di jihaat yoonu suñu borom subhaanahu wa taala ci bu fekkee ne loo xamante ni laaj nañ ko mu jëm ci yoon yàlla ci seen alal dañuy yëkkati daal di joxe bu dee loo xamante ni lu jëm ci maanaam seen bakkan bu ko bu ko bu ko yàlla laajee ñu yëkkati jox ko. nga xam te léegi ñoom faw suñ borom subhaanahu wa dimbali leen faw mu dimbali leen waaye képp koo xamante ni jihaadul ci yoonu suñ borom fi mu jiite kenn mënul nekk kilifa kenn di fekk gàddaayul jëm ci yoonu suñ borom subhaanahu wa taala di jihaad bakkanam boobu noonu mënul sang mënul nekk sangu kenn waaw waaw mënul nekk sangu kenn wallazina am walam yuhaajiru maa lakum min walaayatihim min sayin xatta yuhaajiru waaw nga xam te ne kon léegi loolu mënul ñàkk te yàlla sax nee na ñi nga xam ñooy jihaat ci yoon suñu borom ñooñ ñooy jullit dëgg ñooy jullit ñoo ñi gëm suñu borom subhaanahu wa taala dëgg wallazina amanu haajaru wa jahadu fi sabilillah wallazina aabaw wa nasaru ulaika humul mu'minuuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim yàlla nee na ñoo ñi nga xam ne ñooy ñi gëm dëgg dëgg dëgg gëm suñu borom subhaanahu wa taala waaw moo tax léegi kon ñooñ nga xamante nag ña nga jaam suñu borom di ko sàbbaal hmm, di góorgóorlu suñ borom ci boppam mooy def seen xol ñoom ñu sip lépp loo xamante ni bokkut ak suñ borom rek ñoom dañ koy sip won ko ginnaaw waaw lépp loo xamante ni bokkut ak yàlla maanaam suñ borom bëgg ko dañ koy sip waaye nag yow mi nga xamante ni yaay jihaat tamit ci yoonu suñ borom sa jub googu nga am ak sa ngëm googu nga am loolee bu mu tax nga foog ne maanaam sa njàmbaarteg bopp la déedéet du sa njàmbaarteg bopp ndax fi mu ni lépp bu fekkee ne maanaam jub ak sellal ak jaar ci yoon wi may wut maanaam jub ak maanaam bëgg lu baax nii ak jub nii ak sellal nii taxut a jub fintool nii waaw xam-xam taxut a jub ndax lépp loo xam fintool nii am na koo xam te jubut kon ngëm yàlla loolu yërmande suñu borom la ak mbëggeelam ci jaam bi ak ndimbalu suñu borom subhanahu wa taala ci moom waaw moo tax mu ngi noonu maanaam fintool nii bu ko defee nag mu ngi noonu moo tax loolu mënul ñàkk maanaam nii ñooñu nga xam dañuy jaamu ne yàlla di ko di ko sàbbaal di di di di di jihaad ci yoon di jihaad ak seen bakkan lépp loo xamante ni seen bakkan bañ na ko rek nga xamante ni xam nga yàlla li mu digle nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala daf koo digle loolu bakkan ci moom daf koo bañ waaye li nga xamante ni nag bakkan maam suñu borom daf ko aay moom loolu daf koo bëgg su ko defee na loolu ci ngay taxaw temm nag li nga xamante ni yàlla moom daf koo digle lu ko bakkan bakkan. du ko bakkan bañ bañit nga forcé ko ci rek forcé ko ci rek nako def waaw na bakkan mom ab ben xalé la bo xamanteni fi ndul ni maam faaw mom nga jihad ak mom wa boko baye ci ko neex ni rek fi ndul ni nii fa mi mujj ak yow mom mu ngi non wala yes billahi taala kon faaw nga jihad ak mom mu ngi ñaan wa su ko defé nag jihad gogu bo ci saxé ni da nga gis suñu borom da na commencé di ubbil ay mbir yu bëree bëri bëri su ko defé da ngay dem ba mujj gi suñu borom dafay miinal sa xol topp yàlla bañ loolal ak li nga xamante ni mooy maanaam ak wég weddi suñ borom ak li nga xam mooy sirku ak maanaam maanaam jikkoy ñaaw ak saay saay li nga xamante ni mooy mooy suñ borom yooyu yëpp fi mu duutul daati sa xol alquran alquran dafa ne wa zayyanahu fi xulubikum wa zayyanahu fi xulubikum wa karraha ilaykum al kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humu rachidun suñ borom nee na mooy ñi gëm ñooñu mooy ñi nga xamante ni dañoo dañoo jub ulaika humur rashidun neena yalla neena moy ñi nga xam dañoo jub ñi nga xam dañoo dem ba jihad ak seen bakkan ba nga xam bayyi nañ lepp lo xamanteni moy lu xeto ak shirk lu xeto ak wedd suñu borom subhanahu wa taala ak ak mbolam caay-caay yi nga xamanteni ci sahil aju ak mbolam caay-caay yi nga xamanteni mbiri xol la ñu wattandiko ak lepp luy moy suñu borom subhanahu wa taala léegi lu lepp dañ ko wattandiko won ko ginnaw suñ borom nee na ñooñu ñooy ñi nga xamante ni dañoo jub nee na boo xool jub rek ñooñu la. ñooñu nag mooy ñi nga xamante ni isa zukira allahu wa jilat xulubam ñooñu fu ñu tuddee suñu borom rek seen xol day rëf fi mu toll day day yëngatu fi mu toll nii ci tudd goo ngi tudd suñu borom subhanahu wa xamante ni mu ngi léegi moo tax fi mu nii ñoom it dañuy am li nga xam mooy xosnul xal bi mooy nag fi mu toll nii léegi dañuy dem ba nga xamante léegi tamit seen xol dañuy dañuy dañuy am maanaam xusnul bi nga xam seen xol toujours day nekk nag am tiitaange xol waaw tiitaange xol dañ koy am toujours léeg-léeg ndax ñi nga xamante ni dañuy doog a jub jëm ci yoon suñu borom subhanahu wa taala seen tiitaange ci gi moom mooy li nga xamante ni moom mooy jaamu yi ñu war a jaamu suñu borom ak bal yi ñu war a sàbbaal suñu borom subhanahu wa taala ak ci seen naafile ak seen zikru ak seen awraad yi nga xam moom la ñu war a def te loolu ñu gis ne boo ko bëggee booleeg maanaam bëgg a liggéey bëgg a wut sa maam loo xam ne da nga ci dundal sa njaboot ak yeneen yi la war yëpp nga xamante ni léegi-léegi bu ñu amee loo xam da leen di rëcc sax ci ndigal yi fi ñu doon dañuy am lu leen metti lool nga xamante fi ñu doon li ak ndigal yi matut seen xol dal fi ne njëlbee ngi ñooñu seen tiitaange xol mooy loolu maanaam si li leen di tiital ak leen di jaaxloo maanaam mooy li nga xamante ni moom mooy ndigal yi nga xam moom lañ yor di ko def loolu fi ñu doon bi matut dañuy tiit jàq maanaam seen xol dal mukk li fekk maanaam ndigal yi mataluñ ko njëlbéen fi mu doon ñooñu foofu la ñuy nekk waaw nga xam ci ni xal bi googu moom foofu la ñuy nekk njëlbéen bu ñu mooy ñuy doogu jug noonu rek léegi ne ña ci topp ñi nga xam ñoo ne ci digg ba nag xusnul xal bi gi ñu am mooy léegi-léegi seen xol raf gi muy raf noonu di fa maanaam génn gi muy génn tuuti suñ borom subhanahu wa taala fa fa du dal maam wala seen xol leneen lu du bokk te yàlla ci toq nii nga xam lee léegi dañuy bëgg sax di teewlu suñu borom subhanahu wa taala toujours bu ñuy julli bëgg di ko teewlu waaye léeg-léegi dañuy xool léegi suñu julli léeg-léeg ñu teewlu léeg-léegi duñ teewlu wala léeg-léegi bu ñuy zikkar léeg-léegi ni ñu bëgg a teewlu dëgg duñ ko man waaw léeg-léegi teewlu yi war sax yi ñu war ko def duñ ko mën léegi ñoom xusnul xal bi googu la ñu am fii mooy ñu ci digg boobu foofu la ñuy nekk ña nga xam ne dañoo egg nag nga xam ñoo ne ca cool maam ña leen kaw ñoom mooy ñi nga xamante ni maanaam dañuy dem ba dootuñ gisati seen bopp dañuy dem ba jàpp ne ñoom seen sax amatuñ nga xamante ni tiitatuñ ngir seen bopp waaye ñuy tiit sax ngir jëmmi doomu aadama yi fi mu toll nii waaw mooy la alquran di wax ne la yuxsinunia an tazhabu bihi maanaam dañuy dañuy jàq ngir ci jëmmi doomu aadama yi léegi ñoom weesu nañ seen bopp maanaam maanaam jëmmi doomu aadama yi sax maanaam fi nii ñu ngi tiit ci ñoom fi mu toll nii nga xamante ni ñoom luñ man ci def ko ngir jubal leen rek dañ koy def ndax xam sañ-sañu suñu borom nga subhanahu wa taala xam maanaam yàlla mu mooy kan ak ñàkk gi ñàkk caaxaan fi mu toll nga xam ci ne mu ngi noonu subhanahu wa taala waaw kon kon tiitaange xool googu toujours ñoom dañ koy làmboo muy ñooñu nga xamante ni mooy suufi yoon yi nga xam ne ñu ngi dox ci yoon suñu borom subhanahu wa taala di xool tamit ñi nga xamante ni tey jii nga xamante ni saytaan noonu lu bëri pexe nga xamante ni fi mu toujours rek maanaam maanaam maanaam saytaane mu ngi ci seen i mbir te du leen bàyyi benn yoon waaw duñ ko ñoom seen xel du dal mukk maam ci pexe seytaane yooyu mooy li wax suñu tuwaax laa taamuru makaayida seytaane xabla firaaxi ruuxi lil abdaani bul wóolu pexe seytaane mukk waaw te ñoom it danañ tiit ci jamono bu ne nga xamante ni suñu borom subhaanahu wa taala di leen mere wala ñuy dañuy tiit ngir yàlla mi nga xam moom lañuy ñuy jaam ak di ko sàbbal nga xamante ni tey jii fi mu toll nii waxtu ko neexee maanaam fi mu toll man gis nañ fi koo xamante day jaam suñu borom ba toll ci benn martaw yi suñ borom subhanahu wa taala dàq ko fintoon yi mu wëlbatiku mujj bokk ci ñi gën a alku fintoon yi xoolal ibliis mi nga xamante ni tey jii kuy gën a alku moo la gën a alku xoolal ni mu jaamu suñ borom subhanahu wa taala waaye suñu borom daal di koy digal mu bañ mu daal di koy maam génn ci maanaam yàlla maanaam ab jaamam li mu bëgg ci moom mooy saa bu ko digalee mu def saa bu ko teree mu bàyyi ko loolu mooy taqwallahi nga xam lii da ngay wekk ki ki la koy ki lay digal da koy respecté jox ko cër wekk ko nga xam te bu diglee nga xam ne moo diglee nga def bu teree nga xam ne moo teree nga bàyyi waaw gis nañ fi ñoo xamante ni jaamu nañ suñu borom doon ay yoo xamante ni dañuy dem ba egg fenn waaye mujj gi dañuy bokk mujj daanuwaat bokk ci ñu yàqule fi mu toll nii waaw moo tax fi mu doon gis nga xusnul xal bi googu toujours dañ koy làmboo fi ne toujours dañ koy nekk léegi loolu nag du doon loo xam ne da koy gis ci saaxir nii waaw loolu loo xam te da ngay jàkkaarloo di ko xam ne waaye loolu lu ñu dund la ci seen xol ñoom waaw fi mu toll nii boo jàkkaarloo ñoom ni mën nga ko a xam doo gis ñoom waaye nag ak mbégte nga gis seen kanam waaye dañ koy dund ñoom ci seen biir waaw dañ koy dund ci seen biir waaw fi na boo xoolee si Abdou Khadir euh, al Jeylaani moom da wax ne suñu borom jox na ko juróom-ñaar fukki yoo xamante ni wan na maam du yàquleti mukk waaye tiwul xelam dalut ba léegi fi mu toll nii ndax xam suñu borom subhaanahu wa taala sañ-sañam ndax mën naa bind dara te su ko neexee dindaat ko yamxullahu ma yasa wa yuthabitu indahu umul kitab bi suñ borom lu ko neex mën na koo bind léegi ci ci loxol mahfud bu ko neexee dindaat ko yow mi jaam suñ borom it yow noonu war a amee jaax xam ne yow yàlla fi tuul nii mu ngi noonu man nga jaam suñ borom subhanahu wa taala te yow xamagoo sa mujj man ngaa doon dem ba ya ci mujjanteel ga jëf-jëf joo xamante ni yaa ngi bokk ci waa sawara daal dem sawara Jif jif joo xamante manam jëf wa sawar la suñu borom yóbbu la sawar wala ngay ngay moy di moy di moy dem ci mujjentel ga jëf jëf wa aljana dem ci aljana motax nit ki mujjentel rek mo mo am mo am sens motax tax fi gingo yow jub gi nga jub ko ci dara innaka la tahdi man ahbat walakin allah yahdi man yasha yalla moy xol ko mu gindi ko yow la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim fi yow munu yow katanu katan ak pexe goo xam nga top yalla amoko dimbal yàlla la ci yow waaw nga xamante ni fi mu toll bu dee xam-xam lépp loo xam ak li bu dee lépp loo xam am na koo xam te gëmut yàlla toppul yàlla bu dee kàttan kàttan goo am am na koo am te toppul yàlla gëmut yàlla fi na loolu mooy tax nga xam ne yow ngëm moom lu am solo la te fi na gis nga ñoo xam ne sa ay awliyaaw la yoo xam dox nañ ci yoonu suñ borom ba sori ci waaye mujjanteel ba suñ borom dàq na leen ci yërmaaneem dàq leen ci xadaraam dàq leen génn li nga xam léegi ñu ngi mokk ñu mujj bokk ci ñi nga xamante wala yaas bi dañoo alko fi na loolu moo tax ñi nga xam ne ci dox ci yoonu yàlla xosnul xal bi googu moom dañ koy dund ndax dañuy xam ne yàlla moom toujours fi mu dul nii moom bu ko neexee moom mu ngi noonu moo tax dañuy moytandiku toujours di rot ci bëtub suñu borom subhanahu wa taala maanaam jëf-jëf joo xamante ni da leen di rotloo ci kanam suñu borom subhanahu wa taala wala suñu borom dàq leen ci yërmaanem moo tax di suñu borom moo tax Sëriñ Tuubaa di wax ne ñoom nee na wa tardu an baabil ilahi wal xijaabi ashaddu min kulli xaraami wa azab maanaam ñoom li leen di tiitloo mooy suñu borom dàq leen am dàq maanaam gindi lañ ci mën a joñ fi na loolu sax moo gën a tar ci ñoom mu am suñu borom nga xamante ni toujours loolu fi mu nii moom moo leen tiitloo moo leen di jàqloo waaw waaw nga xamante ni tamit mu ngi noonu gis nga tey jii fi nu ne koo xamante ni ku mel ni maanaam basa masalan bala am ak birsiis nga xamante ni ay jaamkat yàlla yu màgg la ñoon waaye gis nga tey fi mu noonu fi saydaane jaar ak ñoom tay ji ñu mujj bokk ci nga xam dañoo alku wal hiyas billahi taala nga xam tini tay ji mu ngi noonu balaam ak birsis manam maanaam balaam fi ne lu ko alak gis nga balaam euh, manam yont yalla euh, musa ànd nag wa banu Israël arme banu Israël di dem ngir songi ñi nga xamanteni moy noni suñu borom yi subhanahu wa taala nga xam moy musyikuna ñi nga xam ne ñooy waa nit yi balaan bal ba waa nit yi balaam dañoo ñëw ci moom ñi nga xam ne ñooy nit yi balaam dañoo ñëw ci moom ne ko ah yonent yàlla Moussa dafa mu ngi nii moog armem bi te am nañ doole lool te ñu ngi nii suñu suuf sii ci la ñëw ngir maanaam giir nañu ci ñu bëgg nag comme ñun say nit lañ di say dëkkandoo nga ñaanaw ñu yàlla ci maanaam Moussa waaw su ko defee suñ borom subhaanahu wa taala maanaam alok ko wala maanaam mu ngi noonu. balaa xam ne ni yéen de tos nga ne yow kii di yonent bi yàlla nga naan ngeen ma ñaanal ñaanal ko pour ma ñaanal ko maanaam yàlla ah yéen da ngeen al ko waaye nag maanaam dañu ci dañu dañu di ko sonal di ko sonal di ko sonal ngir mu ñaanal ñaanal ñaanal ñaanal leen ci yàlla ci muusa ci yonent yàlla muusa waaye waaye bi ñu ko sonalee sonal bu mujj gi mooy leen léegi bàyyi leen ma laaj sama borom subhaanahu wa taala bi mu laajee suñ borom am daal def ndax mu daan ñaan suñu borom day daal def li nga xam mooy maanaam maanaam lis xaaram daal di kii laaj suñ borom subhaanahu wa taala bi mu defee xalwam suñ borom na ko ne ko diirit bul ñaan bul ñaan ci loolu mu daal di génn xamal aw nitam len man day laaj naa sama borom mu ne ma aay na ma ko waaye ñu daal di koy sonalaat di ko sonal di ko sonal ba mujj gi daal ne ko daal fi na faaw rek nga ñaanal xaaware nga ñaan ci yàlla ci Moussa mi ndax ak nitam mi mu delloo leen ginnaaw biñ ko sonalee bàyyiwuñ ko bàyyiwuñ ko ba mujj ma leen waa baax na léegi xaaral dinaa laajaat sama borom subhanahu wa taala mu daal duggaat xalwam laaj suñ borom suñ borom tontu ko maanaam waxu ko ci dara mu génn waxaw nitam len man day laaj naa sama borom waaye sama borom day bii yoon waxuma dara nitam mi ne ko ah yow kay loolu kay moom mooy tekki ne suñ borom nangul na la ko ndax fi mu toon yow ba nga njëkkee laaj suñ borom daf la kaa xamal ne la diirit aay la ko bii yoon na nga laajaat suñ borom xamal ne suñ borom tontu la kon kay loolu mooy wane ne maanaam jox na la ci ndigal balxam ba tey tamit maanaam nangul waaye dañ ñu rek di ko sonal di ko sonal di ko sonal bu mujj gi ñu ne ah comme daal balxam mii daal moom faqiir la amut te soxnaam si it amut li def mooy nañ tànn fukki nit ci ñun ku ci nekk yor maanaam maanaam maanaam or bu am solo yóbbul ko jox ko soxna si su ko defee comme moom dafa doon koo xamante ni lu muy diisoo lu muy def da ciy diisoo soxnaam su ko defee su ngeen fexee ba convaincre soxna si rek moom mu dem ci moom wax ak moom su ko defee danañ ñaanal yàlla ci Moussa ak armée bii nga xam ne ñoo dikk bëgg a suñu suuf si waaw su ko defee suñu borom alag leen biñ defee loolu ñu yóbbu alal ji ci soxna si soxna si tamit bi mu gisee alal gi xam nga jigéen ni ñu koy waxee rek toujours maam jumtuwaay saytaan la boo xam te su suufu saytaan daf ciy jaar ngir daaneel ay awliya nii moo tax ñu mat a bàyyi xel lañ ñu mat bàyyi xel nii waaw jigéen gu la lewut maanaam xaraam la moytul waxuñu ne jigéen gu la leew kooku mu lew na la waaye jigéen gi la lewut moom moytul ndax ñoom dañoo doon ñoo xamante ni dañuy maanaam boo amee leer nii boo leen rek maanaam sag leer mën nañ ko naan moom jeex tàkk te mën nañoo mu foo xamante ni maanaam fi mu toll nii mu ngi noonu ndax ñoom dañuy ñaar dañuy bëgg di ci taayo koo xamante ni dafay am leer nii waaw te fi mu toll yooyu noonu yëpp yu mat a bàyyi xel waaye gis nga tey jii fi ne demee jox ko alal ji daal di convaincre soxna si soxna si daal dem ci bala am daan na ko nag yow nag ñaanal yàlla ñaanal yàlla ci Moussa mi nga xamante ni da ko dikk nii ngir bëgg nangu suñu suuf si waaw ñaanal suñu borom mu delloo ko ginnaaw moo ko moo ko armée nga xam am nañ doole lool fi mu bëgg ñoo song waaw ñaanal suñu borom waaye soxna si bàyyiwu ko di wax di wax di wax di wax bu mujj gi bala am ne ko waa baax xaaral ma ma laaj sama borom ma dem balaa juk dal di war ci fasam wi manam mbam mi bok bu ci waré dàq mbam mi jëm ci montagne bi mu demee dàq ci ak mon maanaam mbaam mi dal di taxaw manam balaa am wàcc jàpp mbaam mi dóora dóora dóora dur mbam mi dal jugat mu yëgaat mu dama bi ci ak mbam mi dal taxawat mu jàppaat dura dur bam yag mbam mi dal di jugaat demat mu dama bi ci ak mbam mi dal togan mu jàppaat di dóoru du bi ci ak suñ borom jox ndigal mbam mi nako waxal ak mom bammi mi wax balaam ne ko yow tuskare day ñeel na yow balaam yow xana yow yow yow nga fogg ne man xana gisoo malaika yi nga xam ñu ngi taxaw ci sama kanam ku ci nekk nan mu dëppal dëppal dëppal bul dem nga bëgg maa yóbbu ci barab boo xamante ni yow la nga fay def mooy ñaan yàlla ab yonanteem ngir mu alako yow balaam tuskare ñeel na la bi mu defee loolu nag balaam daal di tiit daal di gaaw sukk nag commencé di jooy di ñaan suñ borom jiggal di jooy di jooy ba malaika ya daal di dem mala kii demee seytaan daal di soppaliku ñëw na ko ah yow kay moom bu yeboo nga jàll fi mu ndax fi mu toll nii bu fekkoon ne suñ borom suñ borom kay gis nga malaayika yi dem gi ñu dem nii mooy tekk ne suñ borom jox na la ndigal na continuer ndax bu fekkoon ne bëggul nga continuer malaayika yi duñ dem nag ci ñàkk xelam daal di moom it daal di jub daal di dem nag commencé nag yëg ci montagne ba toog commencé di ñaan suñ borom bi mu commencé di ñaan suñ borom ay wum ñaan jëmale ko ci waa Moussa ak yi nitam suñ borom yóbbu ko ca manam nitam yoy nga xamanteni ne ñoo ñëwoon doon ko ñaanloo waye nak lepp lu mu ñaan ci xewul jëmale ko ci ay nitam suñu borom yóbbu ko ci Musa ak manam armem ba ba mu yàgg nag nit ñooñu daal di ñu nak wa yow mom balham ndax yow li ngay def yaang ngi koy seetlu yow yow ñun ngay ñaanal o ay di ndax yow li ngay ñaan lepp ci yow ay fi noonu ci ñun la jëm ci te li ngay ñaan ci lu baax lepp ma ngay dem ci ñi balham ne leen fi mu toll day li ni manam dogal suñu borom subhanahu wa taala mënuma ci dara مرة سنجب عن دوحة القرآن دي وحن واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يالنين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل الخوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ba mu defee loolu nag suñu borom daa bucc ci li nga xam mooy aw làmmiñam muy yal comme maanaam xaj ni aw làmmiñam di yale balaa am xam ne ndeysaan léegi mu wax aw nitam ne ne fi mu toll nii day man ñàkk naa àllaaxira ñàkk naa adduna ndax suñu borom alag na ma te fi mu toll nii meram wàcc na sama kaw léegi nag fi mu toll nii pexe doo nga fi nekkati fi mu toll léegi daal comme man yàqule naa bu ñu yàqule nañ ñëpp nañ bokk yàqule wa léegi mu daal di wax ne leen léegi li ngeen def mooy dajale leen jigéen ñi nekk ci dëkk bi ñu ci taaru ñëpp ngi dajal leen defal leen bañ jekk su ko defee ngeen dugal leen ci biir armee waa banu Israël bu ko defee ñoom bu mu duggee ci ñoom ñuy jaayante ko jëndante ñoom waaye nag képp koo xamante ni sàkku na leen nañ ko nangul buñ ko aaye buñ aaye kenn seen bopp ci waa banu ñu ànd ak Moussa ku ci sàkku rek nañ nañ nañ nañ ko nangul léegi ñu daal di def noonu nag jigéen ñi daal di dem ci waa banu Israël ci armée bu Moussa ba commencé di jaayante ko jëndante ak ñoom am ko xamanteni leg muy mu ci kilifa banu Israël daal di gis ben jigen gu bok ci wa niti balam balaam daal di daal daal di gis gi daal ni taro rek muntu ko muñ ma daal di ñëw ci loxom ba indi ko ci yont yalla musa ne ko daal xamna nak dang fi nek nan ma manam ki léwu la waye nak duma la top lo ma fi waxe duma la top yont yalla musa ne ko déedéet ki day léwu la ta bu ande ak mom mbirum yalla dana wàcc yow mu ne ko diirit loolu de du ma la ci topp daal di jàpp jigéen dem ànd ak moom dugg ci seenum néeg def lu leen neex mooy yàlla biñ may suñ borom bi mu ànd jigéen suñ borom daal di wàcc na mbuugal ci seen kaw mbuugal mu tar nit ñi dee am koo xamante ne muy bokkoon ci waa Israël moom fekk wutoon lool bi xew ñu dikkee ñu nettali ko mbugal mi tax li ñu def ba suñ borom teg leen mbugal mi nam def mooy dafa dem daal di jël ab xeejam dem ba nekk ci dugg ci néeg ba fa jigéen googu tëdd ak góor gi mu dëbb ko xeej bi ba mu sar ci ginnaaw góor gi ba dugg ci biiru jigéen ba xar ba ginn ba sar ci biteem mu jàpp leen génne ñëw ba ci biti daal leen yëkkati jëmm ci kaw daal ne yow suñu borom subhaanahu wa taala ñun de nii la ñuy def ñi nga xamante ni ñoo la mooy ci sunu xeet ñi la mooy sunu xeet nii la def ak ñoom waaye nag ñu ñaan yow suñu borom mooy mooy gii nga xamante ni ñii moom lañ def yàlla boo ñu ko jàppee biñ defee loolu nag bi waajo bi koo ko defee loolu suñu borom daal di teggi nag mbugal ma ci seen kaw nga xamante ni fi mu toll nii maanaam wax nañ ne mbugal mi fi mu toll nii ab waxtu rek la diire waaye fi mu toll juróom-ñaar fukki junni nit fi na faatu nañ ci diggante boobu fi mu toll nii nga xam ci léegi moo tax kon léegi ñoom jigéen fi mu toll nii gis nga mën naa jaar ba nit ki ñàkk martabaam ci suñu borom ñàkk lépp mbugalum yàlla mën naa wàcc seen kaw maanaam suñu borom dane wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabin illa illa isa tamanne alqa seytaanu fii umniyati yàlla nee na seytaane bàyyiwul kenn yorante yeeg mursalin ñëpp la jiimal képp ku fi jàll seytaane moom jiiruma jiimal na la waaw jaar na sax maanaam yonti yàlla yuusufa ci jigéen muy suleyxaar ngir maanaam bëgg ko yàqal bàyyiwul kenn daa bàyyiwul kenn fi ne foofu mu jaar ak baraam mi fa la jaar ak birsiis ndax birsiis fi ne dafa doonoon jaamukatu suñu borom boo xamante nii ku ragal suñu borom di ko jaam di ko sàbbaal ba mujj gi sax munta nekk nit ñi dem ci àll ba def fa maanaam néegam xam dafay jaam suñu borom ak di ko sàbbaal waaye saytaan nam def mooy fi nga xamante ndax par exemple biir siis daf daan faral di tëju di jaam suñu borom nga xam xasee ba tëju ba commencé jaamoom rek bu tijjiwaat nga xamante ni mën naa diire saw bis journée bi yëpp fi doon nekk ci ay jaamoom bi mu toogee di jaamu suñu borom ba ci àgg saytaane jekk-jekk rek daal di soppaliku daal di ñëw foofu daa jëkk rek nekk ci ginnaawam toog Birisis daal di gerte gis ko ne ko yow day bul ma yàqal damaa commencé samay jaamu suñu borom ba pare te bëgguma ngay yëngatu wala nga may yàqal. seytaane ne ko ndax man dama laa yàqal ndax fi mu toll ndax moom xamul ne ki muy waxal ni seytaane la mu ne ko ndax man toog gi ma toog fii rek ci sa ginnaaw bëgg ànd yow ci jaamu yàlla ndax dama lay xatal. Birisis na ko déedéet maanaam maanaam na ko nag dama laa xamut mu na ko yow ki ngay jaamu seytaane ne ko yow ki ngay jaamu moom xam na ma ah, léegi nag ñuy commencé di waxante di waxante di yàgg maanaam saytaan ne ko man de fi mu tuuti sax man damay jaamu yàlla maanaam léegi-léegi damay tëju di jaamu suñu borom ñeen fukki fan yoo xam ne du ma génn te fi mu toll nii sax mën a Brésil na ko léegi yow kon looy lekk looy naan mu ne ko man damaa soxla lekk ak naan Brésil léegi ci bëgg gi bëgg yàlla ak noonu muy tëjoo léegi di jaamu yàlla mun ne ko léegi xamal ma loo xamante ni man su ma ko defee dinaa man comme saa loolu noonu maam di tëj di maam di toog diir boo xamante ni daal doo def dara daal da ngay yaar rek te doo lekk def dara waaye seytaan fi nu xamulu ko loolu xam lu ko wax dama ne ko dinaa xamal ñaan goo xamante ni daal soo ko waxee ci koo xamante ni dafa feebar feebar bu nekkoon ci moom dina daj waaw loolu la quoi léegi nag biir siis na ko ah loolu day kon am na njariñ kon day bëgg naa nga xamal ma ko léegi biir na ko ah loolu day kon lu am njariñ damaa bëgg kon nga xamal ma ko léegi mu daal di mu daal di koy xamal ñaan gi waaw bi mu ñaan gi seytaan ni mu def mooy dafa dem ci dëkk bi dugg benn waay joo xamante ni léegi fi nu lu ko dugg muy say maanaam di kii fu ñu ko yóbbu duñ ko mën a faj biñ jaaxle ba jaaxle ñu dem ci buur bi ne ko léegi daal am na benn waay joo xamante ni jaamu ko te suñ borom bu màgg la te mu ngi ci àll ba yow ko ci yóbbee xëy na bu ñaanee suñ borom dana ko nangu ndax moom bu ñaanee yàlla dana ko nangu ñu jël yóbbu biñ demee léegi ñaan mu daal di wax ñaan ko saytaane maam jàngaloon biñ ko waxee rek saytaane si daal di gaaw génn ci nit ki maam mu deñ léegi nag mu daal di ne ah kon maanaam mu daal di toog ab diir nag maanaam daal di mel ni saytaane si daal daal di ñëwut fekkaat ko fa nga xamante ni fa lay jaamu yàlla mu wax ko ne ko ah yow day sama xarit bi te fi na xamagul ba tey saytaan lay waxal yow day sama àndandoo bi yow day fi mu toll ñaan gi nga ma xamaloon daal am na koo xamante ni daal dafa feebaroon waaye fi mu nii day fuñ ko yóbbu duñ ko faj waaye fi na ñaan nga boo ko ñaanalee rek dafa daal dañ seetaan na ko ah ñun day fi mu nii yàlla ñun de moom dañ ay jaam la ñoo xam duñ man mënuñu dañuy sawlu rek fi mu lépp ba léegi rek mu koy tëkk lëndam fi bañ mu xàmmee kan lay waxal ni léegi bi tamit daal di organiser xeex boo xam dañ caa waroon dem benn guerre bu ñu waroon dem benn xare bu ñu waroon dem léegi ñi nga xam dañoo am na ñett ñoo xamante ni maam ay ay miskin lañ maam dañoo am benn jigéen rakk ju jigéen joo xamante ni léegi amuñ kuñ ko bàyyee ñu ne léegi nag nañ ko yóbbu nañ ko nañ nañ wax biir siis su ko defee mu daal ñu koy xoolal daal di ñu ko bàyyi xel bi ñu ñëwee ci biir siis wax ko biir siis neen loolu moom duma ko man ndax kii jigéen dañu may mën a bokkee moom benn néeg di fa nekk te dama adam ñu ne ko déere dañ koy tabaxal benn néeg boo xam ci wet gi nii nekk rek nga dañu ko saytol dañu ko xoolal del si ne loo donc man ndax su ma génnee du te naa ko gis te loolu damay araam ak mel noonu ñu topp ko sonal ko sonal ko sonal ko sonal ko ba mujj ki biir siis ne leen waaw ñu tabax benn néeg ci wet gi léegi biir saa bu ñu xëyee mu yëkkati lekk indi ko indi ko ci buntu kër soxna si daal di koy daal di koy daal koy teg ci bunt bi fëgg buntu bi daal bëggul sax mu mu xa gis ko léegi mu koy def di ko def ba ci yàgg benn jour. bi mu tegee lekk gi ci bunt bi fëgg bunt daal dem soxna si bi mu génnee di jël lekk gi rek seytaan dafa def yuuxu kiwa maanaam till bi mu comme façon di till di yuuxoo noonu rek soxna si daal tiit na gaaw jël lekk rek daal di dugg ci mën na ah kon de fii ak till na fi waaw daal di gaaw tiit léegi seytaane daal di soppali ko waat dem ci fi nga xamante ni biir siis fa la nekk di jaamu yàlla mu ne ko xamal ko ne ko nag maanaam euh, maanaam daal xam nga bi nga xamante ni Birsiis dafa dem toog di jaamu yàlla maanaam seytaane fekk ko nag daa da koy xamal na ko daal fan yi daal dégg naa benn ki till koo xamante ni mu ngi kii bi ragal naa ne nag lekk googu ngay teg ci buntu jigéen këru jigéen googu eh, kooku nga xam miskin la ragal naa ne fi mu toon nii maanaam boo muytu tilli moo koy lekk fi mu toon du ko lekk maanaam Birsiis na ko ah daal di daal di daal dina commencé nag léegi nag saa bu demee yóbbu lekk gi léegi bu bu pëggee bunt bi day xaar ba jigéen gi ubbi bunt bi mu jox ko ko léegi nag di ko def nag mujj gi léegi saa bu ko indee lekk gi ñu commencé da waxante foofu noonu ay wax ay kii yoo xamante ni mu ngi noonu Birsiis nag daal di dem ci barab bi mu jaamoo te yàlla daa di fay nekkati bi mu demee nag commencé di jaam yàllaam mujj gi image jigéen gi mel day dikkaat ci xelam muy xalaat seen i kàddu yi ñuy waxante yu mel noonu lañ doon waxante. mu commencé nag commencé tiit nag commencé di astaxfirullah di commencé di jéggul suñu borom ci loolu bi mu defee nag seytaan daal di koy fekkati bi mu ko fekkatee moom ba léegi xamul ni kii seytaan la bi mu ko fa fekkatee léegi nag mu ne ko kooku lay fi mu toll nii dootuma fa demati di ko ju di ko saa mu yóbbuute lekk da ci bunt buntu balaa ko teg waaye du ma fa nekkati naan damay wax ak moom yu mel noonu euh, nga xam bi mu koy wax seytaan seytaan sax mu ngi mel nii di ko naan ko ah non man de fàttaliku ma sax loolu noonu mu ne ko jigéen ki nga jigéen googu nga xam moo nekk sama wet seytaan di ko xamal ne ko man <clears throat> maanaam waxtaan yu mel waxtaan yoo xam dafa jëm jigéen léeg-léeg du di nekk sama xel daa di koy ah léegi fàttaliku naa ki ngay wax mu xamal ko ne ko daal gis naa ne daal waxante gi may waxante moom ni moom may bëgg yóbbu ci loo xamante ni dafa araam tax fi mu toll man góor laa seytaan ne ko nag yow ndax dangay bàyyi koo xam ne ab miskin la boo xam amul moom muy dee ci loo xamante ni yow mën nga ko dimbali loolu de boo ko defee ba mu faatu na la wóor ne bàkkaar bi yaa ko yéeno fa kanam suñu borom bir siis nag daal ne ah loolu dëgg duma ko mën léegi nag seytaane daal dugg jigéen gi mu feebar léegi nag mu ne ko léegi comme dafa feebar te xam nga ne lekk gii boo ko tegee ci buntu ko mën a jël léegi da dugg ci néeg bi su que defee saa boo duggee ci néeg bi jox ko lekk géegi mel noonu précis commencé def noonu mu jigéen nag bi mu ñëwee léegi saa bu ñëwee tey dootu yemate ci taxaw teewoon rek waaye day egg sax ci toog ci lal bi mu jigéen gi ñu commencé def noonu mu gi ba mu gi saytaan dugg ko ba mujj gi mu dem ànd ak jigéen gi jaaloog moom wala xiyaas billahi taala jigéen gi daal ci amee ak ëmb daal di am doom yu amee doom saytaan dikk daal dina ko waa doom ji moom ku ko jur man kaa ah, man kat xawma ko man kaa ah, xam nga ne kat fintoo ni yow dong yaa dëkk fii yaa ak jigéen gi xam nga ne waa dëkk bu ñëwee danañ xam ne yaa yaa ko jur ak jigéen gi ndax xam nga ne sa yoo leen léegi nag ni ngay def nag moom mooy leen rek xam nga lenn loo fi mën a setal amul xam naa daal moom waa dëkk moom buñ dikkee dana xam ne moom yaa ko jur biir si ne ko naa rey naa rey xale bi daal di koy rey suul ko bi mu ko reyee suul ko jigéen gi ñëw daal di ñëw commencé di ko laaj naan ko biir siis ana sama doom biir na ko man gisuma doom ji ba mu yàgg mu ne ko rey naa ko jigéen nga commencé di jooy di jooy mu ne ko léegi ni ñuy def mooy comme rey naa ko léegi ñun ñaar dong fi nekk léegi nañ continuer suñu dund gi ñu daan dund kenn du ñu yàqal jigéen nga ne ko déet seytaane ñëw fekkate ko fa daan ne ko ah mu ne ko man daal rey naa xale ba comme na ma ko na ma ko xelloo naa ko dit man xelloo lu ma la nga rey ko de dama laa wax rek ne la fi tuur nii xale yi bii nii nekk fii bu ko fi waa dëkk fekk ngay xam ne yaa ko jur ndax yaa jigéen ñi doo nga fi nekk loolu dong laa la wax waaye diglu ma nga rey ko léegi nag mu ne ko ana jigéen nga mu ne ko jigéen nga de moom fi mu dama ko tëj fa nga xamante ni mooy ci nekk ba ngir bañ mu génn wala muy wax waa dëkk bi li xew ak yu mel noonu mu ne xam nga ni jigéen day li fekk aw ngi dund ñu mën a wóotee say birisi ne kon na naa ko rey kon daal di dem daal di daal di daal di dem daal di eh, jël paaka jam jigéen gi rey ko bi mu ko reyee daal di koy gas suul ko fam suul doom ja léegi ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko dénkoon kooku noonu daal di ñibbi si mooy eh, ñoo ñi nga xam ñoo demoon ci xare ba dénkoon jigéen gi biir siis daal di ñibbi si daal di koy ana suñu rakk ji jigéen gi dir siis ne leen kooko day dafa dafa dafa feeru feeru metti ba mujj faatu nga xam nu mu leen wax ne maam maa ko rey nga xam ti léegi ñu ne ko ah kon day comme dogalub yàlla te yow moom ko baax nga ko ragal yàlla nga koo xamante ni comme yaa ko eh, maanaam julli jullee ñaanal ko suur ko ci sa loxo yi tedd yi de loolu de amuñu ci du waaye nag woon ñu barab ba ñu mën koo kii waaye biir si nangu ne kon waaye nag ñooñ buñ tëddee di nelaw ku ci nekk ci ñoom ñett ñooñ saytaan daf laa ci sa gént daf laa dikkee ci sa gént maanaam won la lu ne la jigéen googu ngeen seen rakk jooju noonu biir siis moo ko rey moo njaaloog moom mu am doom mu rey doom ja rey ko ba pare suur da leen koy nëbb daal leen tegtal fi barab bi nekk fi nga xam ko suur ñoom ñëpp ñu yeewoo ku ci nekk na daane man damaa gént gént koo xam man yéem na ma lool kii daa di wax lim gis kii wax lim gis kii itam wax lim ñoom ñëpp ñëpp bokk luñ gis ñu ne lii nag moom mënul nekk waaw ñu dem xooli daal di dem nag daal di dem ci foofu leen saytaan tegtal ñu daal di dem foofu bi ñu eggee daal di gis nag fi nga xamante ni fi la birsiis suul xale bi ak jigéen gu seen rakku jigéen bi ñu jàpp birsiis nag daal di koy indi takk ko na ko yow ndekete yow ab saay-saay bu mag nga fintoo nii daal na ko yow moom dañ lay dañ lay siiwal waa dëkk bépp ko yëg li nga def birsiis di leen saraxu di leen ñaanu ngir ngeen sutura ko waaye nag ñu bañ daal di daal di daal di koy kii takk saytaane ku nit daal di ñëw bi mu dikkee mu ne ko yow sama xarit bi sa biir siis di wax ak saytaane waaye xamagul ne saytaane lay waxal ba léegi mu sama xarit bi gis nga sama situation ni ma nekkee tey maa dimbali maa kii ma bi wax xam ne saytaane daal di ree bi mu ree nag biir siis daal commencé nag xam ne ndekete ah kii may waxal ndekete saytaane la bi mu ree rek xàq ci la ko xàmmee xam ne kii saytaane la mu daal di nag saytaane daal di soppaliku mel melukaanam mi nga xam mooy normal nga xam bu ko melee da nga xam ne kii saytaane ma daal di soppaliku nag mel noonu ne ko nag kon nag yaa ngi may doog a xam fi mu toll nii waaw yaa ngi may doog a xam ndekete fi mu toll nii léegi bir siis na anu ko nag léegi dimbali ma anu ah, ndax nit ñi fi na jeg seen waa dëkk bi jege seen te bu ñu seen see danañ ma rey seetaan na ko loolu kay mu lu wér la ray kay yow dañ la koy def moom seetaan na ko nag leen rek laa bëgg nga def ko boo ko defee daal ma dimbali mooy nga sujjootal ma donte benn sujjoot la waaw ndax léegi say bir siis dafa dimbali ma nga nga dimbali ma ndax nit ñi ngi ñëw te bu ñu yegg dañu ma rey seetaan na ko yow yow yaa nga xam ne man seytaane laa ba pare nga di ma ñaan dimbal waaw xam nga ne man seytaane laa pare nga ma lay dimbali bir siis na ko dimbali ma ta nga bàyyi wax ji ndax nit ñaa ngi ñëw li ñuy jege si seen kàddu yaa ngi koy dégg mu ne ko léegi nag su jóotal ma benn sujjoo rek soo mu sujjootee benn sujjoo rek man ma dimbali bir siis daal di sukk daal di sujjootal seytaane mu sujjootee seytaane seytaane nag daal di ree ne ko nag fi mu ni yow moom bis na ko day xamal ni yow weddi nga te yow ci ñiy dem sawara ci nga bokk ne ko inni bari un min ka inni axaafullah man seet naa ci say moom xamal ne maa ngi yow si dara inni axaafullah rabbal alamin inni bari un man seet naa wëcc wëcc wëcc say mbir inni axaafullah rabbal alamin man ragal naa suñu borom daal dem bàyyi ko fa nga xam noonu la ko waa dëkk bu fekkee ba rey ko fi mu toll nii maam jam ko xeej rey ko loolu lépp rek liñ ciy jàngee moom mooy ñu xam ne maanaam euh, li nga xamante ni moom mooy seytaane ak i pexeem te xamne manam yow mi nga xam yaay jaam suñu borom di ko da nga war baye bàyyi xel saytaane ak pexey jigéen tamit bol ci waaw xamne yow mi nga xam yaay jaam suñu borom di ko sàbbaal fintooni boo dëggoo ci jaam go ngay jaam suñu borom di ko suñu borom ko mo lay ar waye nak da ngay fexé ba nak di di di di di di làqu ci suñu borom subhanahu wa taala waaw su ko defee bo boo làqoo ci suñu borom subhanahu wa taala eh, def ko muy sa sa sa wéeruwaay soobaa dara du la mëna dara kenn du la mën a dara waaw waaye nag foofu liñ ci bàyyi xel mooy euh, pexe seytaane ak dooleem ak kàttanam ak am gi nga xam moom la am doole ak pexeem gi nga xam moom la am waaye gis nga mu ngi noonu moo tax yàlla nañ suñu borom musale ci pexe seytaane waaye daal moo tax fi mu dul nii nit ki day làqoo suñu borom bu day làqoo suñu borom lépp lu koy tëru ak di ko maam tikku ak di ko tiir di ko di ko di ko tëru du ko mënal dara ndax suñu borom moo ne yonent sallallahu alayhi wasallam nee na man adal suñ borom neena man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ndax legi suñ borom neena kep ko xamanteni da nga nonu sama wali wi man nga déclarer guerre man suñ borom subhanahu wa ta'ala wa motax fin toni di laqatu suñ borom manam manam di laqatu ci ci suñ borom subhanahu wa ta'ala def ko muy sa wër way mënu ñak wa mënu ñak loolu nag ci ciy dimb rek mooy gën di jihaat ak sa bakkan di gën a not sa bakkan ci di rukkoowal suñu borom di ko jaamu ak di ko sàbbaal ci guddi ak bëccëg gi di ko di ko loolu dana tax gën a not sa bakkan gën a maanaam mën a jaamu suñu borom mën koo gën a sàbbaal gën a mën a not sa bakkan ci li nga xamante ni mu tere ko li nga xam mooy bakkanam ak bànneexam li nga xam mooy bànneexam yi mu bëgg nga xam ci lay buur rek di ci jëm waaw yont bi sallallahu dafa wax nee na dafa bi dafa wax nee na ida taxaraba al abdu ilaya shibran taxarabtu ilayhi ziraan wa ida taxaraba ilaya ziraan taxarabtu minhu baan wa ida ataani yamsi ataytuhu harwala maanaam suñ borom dafa wax ne sabab jaam day bu dee ma jege-jegelu ci di def li mu ko digal ci ay farata di ma jege-jegelu ci yeneen yi nga xamante ne xëy na sax duunu farata ñoom di ma jege-jegeñ du bu ma jege-jegeñu loolu toll ne maanaam sabre dinaa ko jegeñ ñeel sama bopp lu toll ne ziraan mooy ab xasab su ma jegeñee lu toll ni xasab nag dinaa ko jegeñ lu toll ni ay ab jéego nee na bu fekkee daf ma dikkal nag di daw bu ma dikkalee di dox man suñ borom dinaa ko dikkal di daw jëm si ci moom te xam nga ne xelu suñ borom moom yëmul fenn moom moo tax fi mu doon jamono bi nga amee yaatu am wér yaram am ak maanaam ak yaatu gaawal nga jaam suñ borom gaawal nga sàbbaal ko gawal nga not sa bakkan tek ko ci li nga xam fi la ko suñu borom digal da boko baye rek mom mu not la waaw moo tax mu ngi non ta lol li la ci gëna dimbali moy di naafile guddii ndax suñu borom neeno min al layli fa tahajjat bihi nafilatan laka asy ya rabbuka an yabasaka maqaman mahmudan ñi nga xam dañuy naafile suñu borom ñi nga xam dañuy naafile ci guddii suñu borom neena ñoñu de suñu borom man ëllëg yomal xel man la jox li nga xam moy maqaman mahmudan muy maqam mag waaw ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam li suñu borom defal waye tiwul neena koy di yakhfir manam di allah lak ma taqaddam min zambi ko ma taqara waye tiwul daf daan taxaw guddi diko di jaamu suñu diko ko ba sayyidna Isa def dox nee na sallallahu alayhi wasallam day guddi gu jot daf daan taxaw di jaamu suñu borom diko ko ba ay tankam di manam newi mo tax mi wax ne kaana yaqumu min al-layli hatta tatafattara khadamahu fa qultu lahu lima tasna'u haza ya rasulullah wa qad khafa allah lak ma taqaddama min zambika ma ta'akhkhara yent bi sallallahu alayhi afala uhibbu an akuna abdan shakuran ndax manam bëgguma nek jaam bo xam damay jaam suñu borom ak diko sabbal ndax yent bi sallallahu alayhi wasallam neena bu ngeen dee sujjootal suñu borom subhanahu wa ta'ala sujjoot day suñu borom dina leen yëkkati yëkkati seeni daraja faral leen si di ñaawteef waaw ndax loolu yonte bi daf ko dénkoon benn sahaabam di wax ne ko alayka bi kasrati sujudi fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta 'anka biha khati'atan suñ borom de da ko wax nako da fa yontu da wax koku nako ma ngi lay denk ngay sujudal suñ borom sujudi bari diko jam diko sabbal ndax day xamane sujud bo sujudi suñ borom subhanahu wa ta'ala da la ci yekati yekati sa daraja bu gëna kawé tay da la faral say ñaawteef waaw da la faral say ñaawteef nga xamanteni mu ngi non manam dal jihadu bakkan dal bakkan mom faaw nga teye ko not ko bu baax ci jaamu suñ borom ak sabbal suñ borom bu baaxa baax ba sey ci son ndax mom lo rek la bañ waaye nag li fiig nutu googu mom xamal ne maam yaang ci danger bi ndon ba leg ndax waxtu wu ko ne waxtu wo xamanteni ni seytaane jaar na la ci rek wala yaas billahi taala man nga mujj fo xamanteni mu ngi non comme ni nga xamanteni yeneen nit yalla yi fa lañ am nit ño xamanteni fa lañ mujj ñi jaar leen ci jigen te jigéen moom ñu ko waxee woon maanaam moytuñu ko woon na solo di moytuñu ko jotaay yi nga xam jotaayu texee ji la wajitani bu ma jaal si xaaw ni ko Sëriñ Tuubaa waxee moo tax lii nga xamante ni nag maanaam toujours kii dox ci yoonu yàlla mën naa dem ba daj ko muy mën naa dem ba ci yàgg maanaam rot ci bëtu suñu borom wala mu dem ba xam ne suñu borom na ko dàq ci xadaraam ba lii nag moo tax nit yàlla yi di am xosnul xal bi googu noonu maanaam muy tiitaange xol googu nga xam toujours dañ koy dañ koy nekkee waaye nag doo ko gis ci ñoom ba xam ko waaw mara mu ngi noonu daal maanaam bunt la bu yaatu boo xamanteni dañ ko yemale foofu rek waaye bi ñu ko toppee moom wax dëgg man moom moom moom fi mu toll nii ma des na ci wax lu bëree bëri waaye nag xam naa foofu rek lañ koy yemale muy li nga xam moom mooy dëddu adduna ak zuhd maanaam zuhdu maanaam muy dëddu adduna ak li nga xam mooy jihaadu nafsi waaw waaw jihaadu nafsi mooy jihaad ak sa bakkan ci lépp loo xamante ni suñu borom diggal na nga def ko lépp loo xam suñu borom tere na nga bàyyi ko loolu mooy jihaad ak bakkan bakkani nak dafa am ay bakkan yu bëree bëri loolu mom xëy na nañ ko ci jotaay yu wessu façon bakkan yi ak ay tollu wayam ak na ngay def ba manam manam mucc ci ñom kon mu ngi non kon fofu lañ ko yemale ah, xam naa am na loo sax dañ ko ci bëggoon a leerlaat te mooy bi nga xamanteni ci la wax ci manam ni nga xamanteni ñi nga xam dañu wote ci walu jihad ni da jihad jihad jihad rek ko xamanteni da naka fiñ tool ni maanaam ñoom li ñuy def rek mooy di woote ak di wane lislaam boo xamante ni maanaam ci saaxir nii fi mu toll nii maanaam ci kaw nii lislaam bu tar lay doon boo xamante ni fi noonu kenn du ko nangu lislaam boo xamante ni lenn yërmaane nekku ci nga xam fi noonu loolu la ñuy wane fi noonu lislaam bi nga xamante ni mooy jihaadis yi euh, yooyu lislaam boobu ñuy wane noonu nga xamante ni lislaam bu soxot bu ñaan boo xamante ni daanaka fi mu toll nii moom leen ni yërmaande nekku ci lislaam boobu ñu wane nag loolu du lislaam léegi nag dafa bokk ci pexe seytaane maanaam lislaam boobu mu présenté noonu ci kaw noonu léegi fi mu toll nii biñ demee ba jëmmi jamono léegi fi ni muy def mooy dañuy fexe nag bu ko defee ñooñu nga xamante ni maanaam dañuy mbubboo lislaam nga xamante ni ñoom loolu la ñu wane bu ko defee nag biñ ba jëmmi jamono léegi dañuy fexe nag daal di jiima maanaam indi beneen lislaam boo xam lislaam moderne la jéem a génn ci lislaam bu tar bi indi ci beneen lislaam boo xam ne lislaam moderne lay doon nga xam ne léegi euh, lépp loo xamante ni lislaam daan na ko bu njëkk ci góor wala mu koy aaye jigéen wala mu koy aaye nit ki ngir mu def ko léegi dañuy indi beneen façon lislaam boo lislaam moderne la léegi su ko defee léegi dañuy woo ñu ne léegi nag lislaam bee nga xamante ni moom ñee moom la ñu woote nga xam léegi mooy bu tar beeg yooyu noonu nga xamante ni mooy li nga xamante ni moom dara yërmande amu ko nga xam mooy lislaam bi jihadis yi di di di feeñal di ko léegi génn nañ ci lislaam boobu da ngeen ñëw ci lislaam bii nga xamante ni nag mooy lislaam moderne bi nga xamante ni mooy lislaam bii nga xamante ni tey ne na ñoo mu lu ñu dund nga xam léegi fi mu toll nii dañuy dem ba seen islam seen diine dootul leen jaral dara waaw ah, niñ doon téye seen diine dootuñu ko téye noonu parce que parce que amoon war am seen diine dootuñu ko amet noonu waaw ah, léeg gis koo xamante ni sax fi mu toll nii mën naa tukki dem ci yeneen dëkk waaye fi na bu eggee fi mu toll nii léegi pas bi amoon ak ni mu cee woon diine fee na gis day wàññeeku fi nii Ah, dootu ko téye te nga xam léegi ni muy def mooy maanaam di maanaam nekk ay boppam daal nekk ci nekk ci topp bànneexam nga xamante ni lislaam la boo xamante lu la neex wax lu la neex def nga xam day dëpp jamono daal lépp lu jamono indi rek maanaam day mel daal lislaam boo xam daal moom mu ngi noonu nga xamante ni léegi lislaam boo xam ne day mel ni àdduna képp lay doon léegi boobu la ñuy lañuy la ñuy indiwaat nag bu ko defee lislaam bële nga xam moo doon lislaam bi nga xam jihaad yi moo doon jihaad si moo doon noone ñëw ci lislaam bi nga xam mooy lislaam moderne léegi nag suñ bàyyi lislaam bi ñëw fii nag léegi lislaam bi ñu leen di waat di leen ko jàppaloo léegi day fekk léegi nekkul lislaam léegi nag bu ñu jàppee ci bee rek fekk bàyyi ne islam bi nga xam mooy nag bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni mooy lislaam xaqiqatan bi nga xamante ni ñun ci lañu suñu borom jàppaloo ñu war ko téye bu ko defee maam yooyu ay pexe la yoo xamante day ñoom ñoo ko indi maanaam dañuy fi ne saytaan dafa bëri pexe pexe yi mu indi mooy day jëkk indi lu tar loo xam nit ñëpp dañ koy mooloo ko tëkk bu ñu nee ba ci beneen boo xamante ni léegi ab copier lay doon jëlee ko ca be su ko defee ñëpp bàyyi loolu ñëw ji bii bu ko defee nag ba nga xamante ni nag moo doon dëggu ba réer leen dootuñ ko jàppale nga xam mën nañu dund nii rek ah parce que maanaam jàkk yeeg yëpp di kii nga xam dañuy nodd ko yi waaye fi mu toll nii dëgg dëgg ngëm yàlla dëgg dëgg lislaam dootuñ ko dootuñ ca nekk te fi mu toll nii fee loolu ci pexe seytaan la bokk nii nga xam si daal maanaam mu ngi noonu maanaam loolu lañ ci bëggoon a maanaam yokkaat noonu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين